moo leen di may seen revue de presse Master Office ngir bépp jumtukaayu bureau. yéenekaay yi ñu dalal Mamadou Mohamed Ndiaye. jërë ngeen ci weeranteeku weeranteeku wërante ci la réew mi toll audit bi ñu fi defoon atum 2008 naa jur njombe ca ñu ca tudd observateur nañu kasoo leen di yot jamono ji ubbil yéenekaay bi Awa Ndiaye borom kuddu 37500 yi Bayla Wan ma woon ca LONASE Amadou Kane Diallo ma woon ca COSEC Bara Sadi ma woon ca Porum Dakar Ibrahima Ndiaye agence autonome des travaux routiers ak El Hadji Malick Sarr ANREVA bi nañu ñooñee ñëpp procureur de la République de Ousmane Diagne teg na leen ay gët populaire nañu laalaakay Abdoulaye Wade yi mu bëgguloon ku leen laal la Macky Sall laal las yéenekaay nañu mbóot ya la sulli wata ya ngembale woon ca présidence de la République plan tàkkal beeg audit yi ak doxalin wu bon wa doon jébaane ci ARTP du dara lu ci Macky Sall bàyyi ginnaaw enquête kuréel bi république bi ci boppam la yëngal waa ARTP yëngal nañu Cheikh Amar ubbil enquête dina kay Cheikhno Sall directeur général bu ARTP ci conférence de presse bu mu doon amal naka démb gannaaw bu mu jéebaanee ndonga ba xolom sedd ci Cheikh Amar la wëlbatikoon ndax nee na Cheikh njiital TSE dafa tëdd ci seenub xaalis bu toll ci juróom-ñetti milliards di xaalis boo xam ne dañ ko ko joxoon ngir mu tabaxal leen ab immeuble te ba léegi gisuñu immeuble l'observateur wax jot na ndax gars yi dañuy bëgg ëppal cheikh ne gars bu ñu ma fonto ndax immeuble ba ñuy wax maa nga koy tabax bu ñu demee gisal ko seen bopp te bu leen tollee noonee nañu dikkaat ma delloo leen seen juróom-ñetti milliards ndax man demuma ci kenn naan ko kaay ma tabaxal la wala ma defal la lii ñoom ñoo dikk teg ma pression togg ma fitna may ñu ma fu ma yekk sama nàkk sonal ma cib immeuble huit sama dugg ca di ko tabax ñu bëgg ma ray wax ju bari loolee duma ko kenn ab immeuble kenn mënu ko tabax ci benn weer wala ñaari weer dañuy mën a tey ànd ak dal gëm yàlla ma tabax immeuble bi jébbal leen ko lu ko mooy ma delloo leen seen ab na leen leer ne bis bu ñu ñëwaatee di jëlaat xaalis bi danañu ma fay ay pénalité ndax immeuble boobee lu mu gàtt-gàtt fukki nit dikk na ñu ngir ma jaay leen ko ma bañ bis bu ñëwee ne dañuy dellu gannaaw danañu ma fay ay pénalité Cheikh njiital TSE ne bu dee ne waaye RTP dañoo am problème ak ndonga jaw nañu ko lijjante ak moom te génn ma ci ndax man du ma doxee noonee bëgguma woon a wax waaye lu ëpp tuuru Cheikh ne te lu ñu ci xamul moo di ñiy wër di wax ba fi mu nekk nii fayaguñu ma dara populaire nañu coow la fayagul wax ji des na ndax Cheikh Amar ku ko xam-xam ne ni mu noppee noonee la bare avocat di maître Khassimou moom la jël jënd ci juróom-benn téeméeri oto ak fanweer soxna si di Aminata Tall yamu ca ndax nee juróom-ñeenti 4 yu bokkoon ci escorte présidentielle ba oto yooyee ba fi nekk nii kenn gisul leen ci la kaay Aminata Tall di fa xamle ne am na ay oto yoo xam ne ci xaalisu nguur gi la ko jënde ba noppi jël ko séddale ko ay kilifa kilifa ak réew mi di Macky Sall bi di laas nañu oto ya nangoo woon ci kilifa diine yi delloo na leen ko ñu dellu xooli meneen Aminata bokkut ak Tall gi la yoon la muy Aminata Touré jëwrin gi amee wàll justice mi ngi ci le quotidien soxna si di fa xam ne ne ba ñu xoolee càmbar yëf càmbaraat ko gis nañu ne am na ñeenti mu nekk danañu ko jëli leneen lu ñu war a jëli soxna si ne mooy passeport diplomatique yi ndax lu toll ci fanweeri junni passeport diplomatique réer nañu mër ñi ngi ci mboy gi kenn xamul fan la ñu dugg waaye lu mu yàgg-yàgg ña ko yor nañu wàcc te xam ne ñoo ngi ñëw ñëw leen yéen ñu ànd xooli guy gi ci sunu làmb gannaaw ba mu ñàddee sëll bu ndaw di Ama Baldé doomuy Falaye Baldé guy gi xam le ci xët mu njëkk sunu làmb ne làmb ji bàyyiwu ci kenn képp ma ko tas kenn mënu ay gaynam la baayam moom Balla Gaye 2 di Double Less moo ngi ci xët mu njëkk sunu làmb Double bàyyi Triple Less ne fa combat Balla ak Eumeu dina am li am mi ngi ci direct info yéenekaay bi xamal ñu ne at mu yàlla sàkk juróomi millions yi doomu aadama danañu faatu te am tux moo leen di rey Walfadjri Grand Place ci tux moomee ak bëccëgu tey bi ñu jagleel xeex wàllum tux tax mu seeti ñi nga xam ne boroomi tur lañu siiw lool ci réew mi di tux ba noppi di ko nëbb ña bi jiital moo di Thione Seck ak Youssou Ndour Macky Sall njiitu réew mi dafa mi rek ma ko bu boobaa paketub cigarette ba ca gën a tuuti ñeenti junni laa koy jaayee xam naa dana métti lool ci Babacar Fall ab lay Diop waaye danaa ko